li Sénégalais yi xaaj bi bëri na ñu woote tam culture culture nag mënul yem ci làmmiñ mënul yem ci teewu ay lu ñu pratique ngi doore ci réew mi lañu dénk te bu ñu fàtte mu ni am na ñoo xam ne joxe nañ seen bakkan pour ñeent bi am na ñoo xam ne joxe nañ seen bakkan ci woon ay ndaw seen waajur yaakaaroon leen réew mi soxlawoon leen waaye projet bi jaral na lii ba ñàkk seen bakkan kon ñooñu waroon ñëw gën a am na ñoo xam ne ñàkk nañ ci cër ci seen yaram ñun ñëpp dañoo tudd dégg ñu naan fit ngor jom kóllëre ak yeneen ak yeneen li suñu discuter waaye li ma gën mooy leadership moom man boo xam ne day presque par exemple rek tey am nañu occasion bu wane nag mën nañu wala mën daanaka nekk au contact de la réalité ñu dénk la la ca des yëpp teewul ngi door am na ay actes yu ñu posé diggante prestation serment son excellence président de la République Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement bi ñu noonu la ñu war a continuer ba keroog mandat bi di jeex ci ban anam mooy saa su nekk kenn ku la ci dund nga jiital l'intérêt du Sénégal et du peuple sénégalais. Nous tâcherons de faire les meilleurs choix possibles lu nga yomb ay nit kese la mais à chaque moment dinañu def les meilleurs choix possibles pour

c'est pas dans un souci de le contrôler xam nañ ko xamal bu ma ko dama ko xam te xam naa ni lañ ko dégg amul kenn ku nekk saal ko aptitude ak capacité à le faire waaye ñu toll ni nguur ñu toll ni état xajul ci benn loxo doomu am naa chance nag indirectement d'avoir vécu les derniers moments du président Le te qui qui dit que les a moi il la solide mais n'est pas seulement une chose de se perdrait. règne nous nous rendons compte que c'était une solution de tout son règne mm-hmm. mais tant qu'il avait des choses à distribuer il voyait des gens qui faisaient semblant d'être donc est beau, dafa manifesté wu de manière flagrante ci fin de règne mais en réalité solitude bu ko accompagné bi noonu suñu ko ñun nag dañu war a fexe ba solitude boobu bu ko président Bassirou Diomaye Faye sentir jamais. merci. moom mooy président de la République dans une attitude présidentialiste kon il est au-dessus de tout yàlla jox ko ay pouvoir yoo xam ne c'est le pouvoir immense kon ñun ñëpp dañu war a jóg cër boobu nangul ko waaye en même temps war ko accompagner te accompagner nit nag nekk ci position bi mooy di ko xelal ak ñu rafet xalaat yu rafet bu ñu dënkee xalaat ba pare mu nekk bu rafet la ñun ñëpp ñu takk suñu digg am solidarité comme doonte ba ñuy tënk tënk tënk xalaat bi mun na am am am beneen opinion waaye bu ñu tënkee ne lii la bu ñu génnee ñoo xam suñu daal rek mën sëkk ba pare nag am ko wax doon bouclier doon bouclier pour défendre le projet parce que yàqkat yi day seen xol ne ko waaye wala ñàkk nañu benn bataille mais taxul ñu déposer les armes mhm. parce que ngeen seetee li xew fan yi rek ci ay fake news ak ay essai féewale di nga xam ni bàyyiwul te ñu ngi xaar premier xabasaw rek pour am ñu ci loolu. Mhm. loolu nag dañuy xaar chaque année chaque ndaw que ñu doon un bouclier bu solide am solidarité bu mag sëkk ba mun a am des résultats yi nga xam ne moom la ñu diggante pour Sénégal kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Il y a une qualité de pour cette victoire qui est bonne. waaye yenn parti li ñuy ndam amagul en réalité et que je ne suis même pas au bout du premier mandat parce que réew koy transformer durablement du ñuy liggéey ci benn fan waaye au bout au fur et à mesure que ñuy dem te dañuy xam ndax ñu ngi ci yoon ndam ak déet ñu ngi leen di gërëm leen